إله إلا الله

Sorry, I don't know. Bukenu duga, bukenu duga. Sorry, sorry. Eh. Eh, eh, no, no, no. No, no, no. lento, lento, lento, lento, lento. Yeah.

heart. Oh, ¡No, ¡No, no صبر واسعون جبين رسول الله والخلق أوسع تبرك المنان والرابع يمنعون قلبي ومحيته كسان وصدر موسع أبرق المدانع رابعي ظالم العزيان هذا وعجل عيننا للصبر جبين رسول الله والخلق أوسع أبا كل لا بيعي المعاد عن الله عام الدور والعام فهو يخشعون أبرق بدنه والنبي ظالما زياد من كف بتفكر ويقول قال الفضل والحق يرجع وينظر لحظا وهو للإرجخان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم عليه الصلاه والسلام ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu mbokk yi toog teew ci di guddee di jéggalu guddee bi nga xam ne jotaay bi guddee na <clears throat> doomi aadama li muy tëral dox ci ndigalu borom bi subhanahu wa taala ak namu namam lii la yàlla namoon alhamdulilah rabbi alamin ñu ngi nuyu ñu toog ci jotaay bi yëpp di ci jiital sayxa Aïssa bint Ibrahim ibn Maay Abdullahi al jaddu ñu ngi koy nuyu di ko masto coono ci coono yi mu daj beeg si tey waf bi bi nga xam ne jógee na ànd ak Medina ak moom ñu ngi nuyu ñoom ñëpp di leen ziar di ko ndokkeel ci bërëbam ci biir njabootam ci biir taalibeem su ci jógee dañu nuyu ki nga xam ne moo war def waxtaan bi muy Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Mahamad Mahi ibnu Seydi Ali Cissé buñ ko nuyoo dañu nuyu kilifa ak dëkk bi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi ñu ngi gis ci am ngi koy nuyu di ko ziar di jégalu caga bu suñu bàyyi al muqaddam al murabbi Baye Alaaji Baabu ñu koy nuyu baax di ko ziar xam ne na bu yàgg noonu la ñuy nuyoo nga xam ne mooy suñu mag Cheikh Ahmad Daan ñaan ñu ngi koy nuyu di nuyu al muqaddam Cheikh Baye ñu ngi koy nuyu di ko ziar. waaye di nuyu Seydi Mouhamed wala Seydina Oustazuna al murabbina al allaama Cheikh Mouhamed al Amin Niass ñu ngi koy nuyu dama gëj a sama bët moo yéex a tegee ci kawam ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara xam naa buñ namee jaar ci tur yëpp dina ñëw sonal isaami lam tasitu mahrifatan innama lasitun zakarnaha jaar ci tujje rek du jëriñ waaye képp koo xam ne teew na rek suñu làmmañu baatin tudd na te moo gën a matale ñu ngi nuyu ñëpp seen teewaay jotaay bi dafa dam dañuy njëkkanteeg waxtu wi lu ñu am ci waxtu bëreetul su ko defee incha allahu rabbi dañ koy laytaayoo li nga xam ne moom lépp pays bi di laytaayoo ak jotaayam nii alquran mi nga xam ne Cheikh Ibrahim radiallahu anhu dundam lépp daf ko dépassé ci alquran dundam lépp daf ko jeexal ci jàng ak waaye mu ngi ko dooree ci téere borom bi subhanahu wa taala te ci li ko mujjee itam buñ ci loolu dañu am ci ñaari maqaala ñu ay discours benn bi nekk ci arab ci yaram benn bi nekk ci english buñ ci jógee dañ jox Cheikh Ibrahim Jum mu sant ay kanam bu ñu noppee ci loolu rek dañ dem sëriñ bi bon su ko defee loolu moo ci nekk ci ay kàddu dañuy wax sax Mouhamad Nazir mu ñëw jàngal ñu lenn ci ay ay alquran ñu barkeloo ko الله الرحمن الرحيم صحيح إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ثم لم يعلموا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم مطعم في سبيلك لا أولئك هم الصادقون دينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا أي الله

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العجب أهم منذر منهم فقال الكافرون هذا أإذا مسنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يلا القران دون سنبوت دس دون سنبوت يا ربي نشاكي رضي الله عنه بن بوسن قال تجعل لنا حفظ كتابك الكريم كرامتي الى لقائك العظيم شوقي وحبي فيك لا يصفي سوى خلولي في برنامج نيجي روان تقوى ان شاء الله وربي dañu woo suñu mbokku nga xam ne bindoon na benn maxaala ci luga arabiya mi Cheikh Ousseyn Gueye ma dafay ñëw li nga xam ne mooy maxaalam su ko defee ñu ci li nga xam ne ñu ko bind ci làkk anglais euh, ñu continuer incha allah ana Cheikh Ousseyn alhamdulillahi wa kafa وصلى الله على نبي المصطفى وعلى آله النجباء وصحبه الكرماء ورحم الله عن أصحاب رسول الله فقد لاقوا كل مرارة حرا ليصل دين الله إلى كل بقعة وأروى هم شهدوا بدرا وخيبر بعدها ويوم عليم والدماء تسبب وبعد أيها الحفل الكريم أحييكم بتحية معبوقة مصبولة بعرف الزكي ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بادئ ذي بدء أطلب الإذن منكم جميعا لقول الشاعر لا تفعلوا شيئا من غير إذني فالإذن شرط في قبول شاني أرحب ترحيبا على أمنا الجليلة سيدة مام عائشة بنت الشيخ إبراهيم ياس التي نستنير بنورها وضيائها وجمالها تذكرنا قول الشيخ إبراهيم الناس جمالك أنس وهيبة ومحبة في هذه الحفلة المقيمة المباركة وبفضلها نستطيع إقامة مثل هذه الجلسة الميمونة والتي قامت مقام أبينا أبيها فينا مددا وإمدادا نسأل الله لها عمرا طويلا وأعواما عديدا وأزمنة مديدة والتوفيق والسلامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يطربني غاية الإطراب رفقة الفرح والمرح لإلقاء هذه القصيدة ترحيبا وتمديحا لسيدي مولاي الشيخ جلال الدين شاعر الدين حبيب السيوط والكهول بل السبابي في مشارق الأرض ومغاربها أقول في صدرها يا كوكب الهدي والنور فكم ظلمي من بيده كأس علم كاشف الغمم يا سبلة الأسد يا من بهره زبد رقية وجهه وينقذ العلم قد طالما راقب الأقوام حضرتكم فالهدي تظهر متى ما جئت والنعم أهلا وسهلا بلا هن ولا ضجر في محضر أنت هادي الناس بالهكم سحقا وسحقا حياة من سوى جلال سحقا وسحقا حياة من سوى جلال شمس الشموس متى ما غبت فالظلم رتل ورقل وبشر للذي شغفوا ما هي الدلال أي ابن الحاذق الفهم أصلحت ما أصلح المعذورون في رشد بلا مراء ولا شخط ولا هدم لو كان لو كان من شجبكم هذا فلا عجب فرأت من شجرة من يرسم لها القرن نرجو الإله على ما من من نعم بقاؤكم عندنا ذا أفضل النعم فرد فريد فمن يدرك مذاهبه يهلك فرد فريد فمن يدرك مذاهبه يهلك فليس سوى النور والظلم صلى الإله على سيد الورى طه ما دام دامت سماء الأرض والأرض والنجم والحمد لله أول دعوانا وآخرها والحمد لله من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ñu ngi nuyu al muqaddam Ousmane Diouf la jàngalekat alquran la ustaas ñu ngi lay nuyu sa soppe Ibrahima Sow depuis démb la jiitu mi ne toog ak ñoo depuis démb jiitu la mon Cheikh Ibrahima Sow di seet suñu baay tafsir Malick Sow suñu maam ji baax jooju ñu koy nuyu di nuyu Ismaïl ñu koy nuyu Cheikh Ismaïl ñu lay nuyu di la ziar di baax moom tamit su ko defee dañuy woo Aliou mu ñëw joxe li nga xam ne mooy maxaala ci làkk yaa anglais ñu ngi nuyu suñu mag suñu kilifa Cheikh Alioune Diouf di doom ci suñu baay maam Cheikh Diouf di mag ci nga firi Diouf mu ngi ne toog ñu lay nuyu baax suñu bët moo lay yéex a gis ñu ngi lay ziar bu wér a wér su ko defee ana Ali Diouf dañoo jàllale li nga xam ne mooy discours am ci anglais incha allah ñu ko programme الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Praise be to Allah, the Lord of the world, the most gracious and the most merciful, the most of the judgment. Fathers and mothers, brothers and sisters in Islam, I greet you all in the best way of greeting in Islam by saying Assalamu alaikum wa rahmatullah to you all. As saying goes, it's a great pleasure to stand in front of this humble gathering, thanking each and everyone here, most especially one of the most amazing women whom you know is a source of inspiration. A person whom you know, being around her makes everyone better. Who is she? Sheikh Aisha bint Sheikh Ibrahim Yes, Ibn Al-Hadi Abdullah Yes, Ibn Muhammad Yes, We appreciate you. You are perfect just the way you are. Please accept my deepest gratitude, Furthermore, I will also try and express my gratitude three person, so a very knowledgeable person who spent all this time seeking for knowledge. Who is he? Sheikh Ibrahim Sise Jalaluddin, Ibn Sheikh Mahi Sise, Ibn Al-Haji, Alim Sise Babul Hadra. Yes, sir, we appreciate you. Words can express how you mean to us. We wish you all achieve many more levels of success, reach greater heights of prosperity, make amazing memories with more of Allah's blessing. Amen. We, the youth behind this program, are also happy to express our gratitude to our one and only brother who is behind this program financially since year before last up to date. That's Sheikh Ibrahim Jum. Let your peace fill our hearts and let your joy be our strength. No matter what we face in life, we thank you. No matter what we face in life, we thank you. May Allah bless you. We thank God for giving us the best brother one could ask for. On that note, I all for wonderful kind na yàlla su ko defee xam naa dañuy dugal xaafis bi tey mu jaar ci délai délégation sëriñ waaye balay boobu dafa am lu fi ñëwoon daaw ñëpp doon ko laajte yàlla ci mbaaxam mu ñëwaat ren. li nga xam ne moom la jàngkat gën a bëgg <clears throat> ba xam-xam ba pare mooy téere yi nga xam ne ñëpp doon ko daaw daaw benn ñëwoon mais ren dafa yokkaat yeneen ñaar euh, sëriñ bi moo ko ko teg ko su ko neexoon daf ko rek teg ko xam la cay yàq mu defaral ko boppam la cay sawaab mu continuer ko waaye gannaaw ba mu ko jàngee mu leer ko mu am ci yoo xam ne mbind nii doy na waar lu bari soppeeku na ci mu jël yitteem jël alalam ngir jëriñ ñu ñun ci xam-xamam waaye jëriñ ñu ci yitteem jëriñ ci alalam defar ba mu baax togg ba mu ñor nañu kaay leen jëriñu bon nañ nangoo jëriñu téere bu ci njëkk mooy ruuxul adab bi nga xam ne dëgg-dëgg beneen la ci nekk loo xam ne ma jàngalekati majaalis xam nañ ci dara ñu ci sonne dañuy corriger corriger corriger ba sonn des fois taalibe jàngee ci ku mel ni man bu demee ci ku mel ni ustaas rek bay ci ba mu jàng rek mu téye gémmiñ gi ne u benn xarit nee na ma bind bind mu ne ma ñaari bind am bind sib la ak bind comptable mu ne nag aji bind gi xamoo li tax mu bind la des fois nag nga gis borom xam-xam mu bind fekk dafa sib kii wax ngir yàq yu yi nga xam ne mu ko yàq sëriñ bi nag loolu dinaa ko jeexal man incha allahu rabbi wala dina ci bay waaram moo tax majmual xasaid bi nga xam ne jàmmookat yi ak sikarkat yi fonk nañ ko lool ak ñi nga xam ne bëgg nañ yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ne ay tagg ay am daax lu tedd ñoo ci nekk ñaal yenent boobu sallallahu alayhi wa sallam mu waxoon ne man madaani baytan aw baytayni aw jagtu lahu safaati ku lu ba tàggee ben bayte wala ñaar rek na la yoyal sagram bind bañu si ku nek war na koy ut boko man da jang sa daf daf ko sene ndax baye dafa wax ni alayhi salatu lahi suma wal taqbalu amdahi wa taqbalu man yahki aw yalla maa lay ñaan nga nang samay wey soko nango kep ko xamne mu ngi wuyat wey ra nga nangul ko bon su ko ruhul adab dañuy gis nak bëri na mel ni moom bëriwul ndax bi ben la benn mooy ne mbind mi leer na nañ ñu seen bëri neexut noppal na mooy ne bind mi set na boo ko jàngee ba jeex su la neexee xam ne mokkal nga ko comme ni ko Cheikh Ibrahim binde woon ci lu amul yokk lu amul wàññeeku sëriñ bi andi na ko di ko weccee koo ñaari téeméer dalasi two hundred ku ci bëgg bu mu jóg dana toog fi léegi hul adda baa ngi nii ku la ku la jox two hundred jox benn ku mën a jënd tamit ku mën a jëndee four hundred baax na ku mën a jëndee five hundred baax na ku mën a jëndee junne baax na waaye wax nga ma benn waaye yow maa yow far yow sa benn ñaar yow la ñuy jeex ba rek waaw saa si suuf bi tey jàngalekat ñëpp xam nañ ko muy nii mu ne ruusa adda bi dañoo bëri yàq waaye bii moo wér kon nag ñëpp nañ jënd wér saa jaane naa ko jaajal saa dama jënd ko jënd سلام أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح القاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اتوا لنا بهذا المحضر تعطي بنظرة تأتي لنا بالذكر سلام على برهام خوص زماننا سلام عليه وهو عبد مكرم سلام على فخر الرسول قديمه على سائر القدام وهو مقدم عليك صلاة الله ثم سلامه أحل لسان الدهر لا أتلجج فيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى وصلني بحمد الله وما يتقدمه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولومي بنجلين نيو بلين زيارة بلين أه، بوكل تبس وسل بي بس بي نخمنا بس تاكي بس يالي يجيتر نيو بي الزيارة بي سني ياي سني مام سيدة عائشة بنت الشيخ ابراهيم رضي الله عنه ñu koy nuyu bu di ko ziyaara di ko ndokkeel di ko wàcce wàccu waayam di ko masaw coono di ko nuyu moog délégation bu mu ànd ak suñ bàyyi foo ne teew di nuyu suñ sëriñ euh, suñ kilifa Cheikh Mouhamadul Amin Niass di doom ci Cheikh Hussein Niass waaye ñu nuyu suñ sëriñ euh, Cheikh Ibrahim Cissé Jalaaluddin mi nga xam ne moom lañ àndal fii fan yi yëpp mu nekk ci jotaay yu mel nii lépp dara warul ko lu dul roy yoonu maamam bi nga xam ne wax na bu yàgg ne kawe na géej gi kawe na montagne yi li tax muy def loolu yëpp wa ubrizu lil jiilil jadiidi misaala wan génération bu bees bi ne leen ku bëgg a tasaare diine il faut nga def li may def man Cheikh Ibrahima ànd ak moom ba mu koy def daifun xalilun saibun boobu mu ngi feebar mu ngi lot waaye nag nee na dafa farlu déggee ci bayt boobu mooy man Cheikh Ibrahima maa ngi nii laa pare feebar yéen ndaw yi nga xam ne am ngeen kattan nekk ci wér ku ci am xam-xam li la war mooy nga euh, jëriñ ñi la tene ci xam moom nag loolu rek mooy liggéeyam ba wax na ne euh, bés mu tukki ñëw ba ak tudd nga Moustapha Ndaw tudd nga uh, Samba Thioune tudd nga Mouhamadou Xazaali yàlla tudd waaye tuddaale sax Mouhamed Ba Zakir ndax ñoom ñooñu ñëpp bi ay jëmu lañ yoo xam ne sëriñ bi moo leen jëmal kon ñu kontaan bu baax di ñaan yàlla jotaay bi yal na yaa yeggalu ci jàmm li toog raxas ndabu xol yi xam ne taw xam-xam mu ngi ñëw taw leer mu ngi ñëw taw mbër mu ngi ñëw su ñëwee nag yal nañu yàlla may nopp yu a dégg xol yu mën a

nga xam ne képp ku ci nekk sax da dem ba xam ne coone sa mbir la nga dal ko miin rek noppalu bon sëriñ bi ñu ngi koy mastawu nga xam ne dem bu ci programme la fanaan xëyee fa ñëwaat ci programme jàll ci féeri bi ay boori cinq heures lekk si suñ ko dalal ànd ak coono boobu lépp war a toogaat ak ñun toog bu lii su fekkoon lu ñu jënd la kenn suñu amul njëgam waaye dëgg-dëgg li nga xam ne moom la maamam simboon ci la nekk yal na yàlla mottali ko yaara bi yal na yegg te bu yeggee yal na mat yaara bi ci zaahir ak ci baatin ci barke yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi wax ne téere ba léegi mu ngi dam euh, dañu dugal suñu bàyyi suñu sëriñ seex ustaas Baye Jaase moo wax ci làmmañu taalibe yi ndax daaw moo ko defoon ñu fekkee ren yal na ko defaat ren ñu fekkee déwén yaa rabbi ndax ñaanoon nañ yàlla daaw ba ñu jógee fii ne déwén nañ ko fekk ak jàmm bu kenn manqué te wax dëgg man xaw ma ko manqué bon nag yal na may ñu ñu mën a mot li bu fekk fekkee ñu ñëpp kon dañ jox oustaz mu bu waxee rek ah <clears throat> mënuñu jox ko suñu baay Seydou Mouhamed Lamine Niass al amin nga xam ne néew na ku toog ci tant bi doon jàngkat lu meeg jaar nga ci ala jaar nga ci ñëpp ci ronam ci leen jàngee ci lañ yaro hmm? kon moom nee na jox soob nga sa alawa seen ron bépp ndaw lu nekk ne ma delloo boppam ci xam-xam soob nga seen ron naam tee xam-xam kon yal na yàlla aaral na leen yaa rabbi yal na yàlla seddal seeni jëmm seddal seeni xol yàggal leen fi ci zahir ak ci baatin bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bon nañ jox oustaz mu jàlle kàddu taalibe yi su ko defee ñu continuer incha na ñu ngi mooy ñu ngi nuyu suñu sëriñ sayxa nday ayda di saaku ci moom ndigal di ko dalal itam di ko ñaanal yàlla wér ak yokkute ci zaahir ak ci baatin ndaw mooy di ko xamal ne ndaw yi nekk ci ronam njiital ñii may wax si njiital ñii mi wax si bu dee ci daara ji di jàngale alquran mu ne bu dee ci daara ji di jàngale alquran ustaas Diouf ustaas bu dee ci sikar si bu dee ci mbay saakir mbay saakir bu dee ci bi ci ndaw yi Ibrahim Jum mooy Ibrahim Jum lay ne ñoom day teg nañ seen tànk fu ñu soxla ñu teg. mu ne ñu mu ne ñu lay xamal ne ñoom teg nañ seen tànk fu ñu soxla taalibe teg tànkam. ñu ngi lay seedeel loolu. mu ne ñu lay seedeel loolu. ndax moom ak ñoom ñoo dëkk fii. ndax moom ak ñoom ñoo dëkk fii. lu gën a ci ñoom ñett ñii mu tudd. mu gën a bëri si ñoom ñett ñii mu tudd. toog semaine. bu toog semaine. lu may gise nañ. lu may gise nañ. wala déggante nañ. wala kenn ci ñoom ñooñu. kenn ci ñoom ñooñu. ñu toog ñu toog. waxtaan ci lenn ci diina. waxtaan ci lenn ci Ibrahim yi. bon sayxaa ñu ngi lay wax ne. bon sayxaa ñu ngi lay dal ci ñooñu. ak ñañ àndat. ñaanal leen yàlla. leen bëgg. ci sa buntu. liggéeyal baay pour liggéeyal baay yàlla jox leen wërsëg nga ñaanal leen loolu mu ne ñu ngi sàkku nga ñaanal leen loolu jotaay bii nag mu ne jotaay bii nag man de mu ko Ibrahima de yëgal moom de ba ko koy Ibrahima de yëgal ne ma waajal daf ne ko waajal maam astu jànqa siyaare maam astu jànqa moo tax mbóot mi ci wàcc wàcc moo tax mbóot mu ci wàcc wàcc si. Seyda ñu ngi lay ndokkeel yow ak sa tooma. Seyda ñu ngi lay ndokkeel yow sa tooma. mooy Seyda ma asu taalibe yëpp bég nañ ci yow. taalibe yëpp bég nañ ci yow. kontaan nañ ci yow. kontaan nañ ci yow. mu ne gannaaw sayxa. ñu ñu ngi nuyu suñ sëriñ. Allahu akbar hmm. suñ doomi sëriñ mu ne suñ doomi sëriñ suñ doomi sëriñ suñ doomi sëriñ mm ñun amuñ lu Mawlana Seydi Aliou Cissé. mu ne ñooñ amuñ anhu. yal nañu ko yàlla fayal. yal lépp luñ am ci mbaax. lépp luñ am ci mbaax. baik. Ak ci bëgg baay. Yalla ak Seydi Ali Cissé. Yalla ak Ali la. Yalla ko yalla fayal. Yalla yalla dimbale Cheikh Mahi. Yalla yalla dimbale Cheikh Mahamadul Mahi. Mbolem ay magam. Ak mbolem ay magam. Ak mbolem ay rakam. ak Ali Ak ak Ali Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim. ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi ñaanal yàlla yal na yàlla wëttu la yal na yàlla xaar la yal na yàlla sàmm la li nga bëgg ci sa jëmm sa xam-xam sa wérgu yaram sa xam-xam lépp yal na yàlla defal la ko ci barkeeg sa maam Seydi Aliou Cissé. ci barkeeg sa maam Seydi Aliou ci ci ci xam-xam. ci xam-xam. yal na jox na jox ko mën a ba ma Ibrahima waxee ne. keroog ba ko Ibrahima waxee ne. jàpp nañ bi. nañ bi. Cheikh Ibrahim moo koy def. Cheikh Ibrahim moo koy def. mu ne ko mbaa ci ndigalal seexaa mbaa ci ndig mu ne ko mbaa ci ndigalal seexaa mu ne ma yow de dafa mel ni ba ñuy ba ñuy wax ak Seex Ibrahim dañ fa nekkoon mu ne ko dafa mel ni ba ñuy wax ak Seex Ibrahim dañ fa nekkoon mu ne def dara lu muy ci ndigalal seexaa daf ne ko moom du def dara lu dul ci ndigalu seexaa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy doomi Seydi Aliou Cissé mu ne loolu mooy doomi Seydi Aliou Cissé Seydi kanam ñaseen abdu rek la. abdu rek la. ñu ngi lay ndokkeel Cheikh Ibrahim. ñu ngi lay ndokkeel Cheikh Ibrahim. di la nuyu. ñi nga àndal yëpp. ak ñi nga àndal yëpp. di leen ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla. li jaamu yàlla yi yaakaar ci yow. li jaamu yalla yi yaakaar ci yow. yal nañ gis li ko ëpp. ngeen def li ngeen def ci jamm ngeen def li ñuy def ci jàmm. ñibbi ci jàmm. ñibbi ci jàmm. bàyyi ñu ci jàmm. bàyyi ñu ci jàmm. fekk fa jàmm. lépp ànd ak ngërmande Cheikh Ibrahim. lépp ak ngërmande Cheikh Ibrahim. ànd ak ngërmande Seydou Aliou Cissé. mu ne taaliba nañ ci yow. surtout ndaw ñi. ak mag ñi. ak ñu jub ñëpp. ñëpp bég nañ ci yow. mu ne bég góog ñu bég ci yow. yal na fekk yàlla bég ci yow ba pare. yal na ci yow ba pare. yal na fekk yenent bi bég ci yow ba pare. يلنا فيك شيخ نتيجاني بكتي او ببره يلنا فيك شيخ ابراهيم بكتي او ببره مولاي سيدي علي سيسي بكتي او ببره يلنا فيك مولاي سيدي علي سيسي بكتي او ببره مولاي شيخ محمد الماهي سويجر بكتي او ببره يلنا فيك شيخ محمد الماهي ماهي بكتي او ببره من اللو يلا من نكو يلا يلا دفن نكو تيو جبرك باي جبرك شيخ تيجان بارك سيد علي اللهم صل على سيدنا محمد وسلم jërëjëf Seydou Sass yow tamit ñu ngi lay ndokkeel sa taxawaay bu rafet sa mën a boot bu rafet waaye sa mën a jàngale bu rafet ndax wax dëgg yàlla li ma wax rek bëri na ndaw lu ndawoo neema bëgg xam-xam lu meeg jàng ci daaraam damay wax ne gisuma ku yem ci bëgg jàngale ustaas ñun bu daan ñu jàngal daan ataaya soo xëccee baraade bi mu aay la mooy jàngale mooy xiim ataaya di la jox loolu jafe na de suñ fa nekkee mu ñu jëndal ndékki ñu ndékki soo di jàng suñ paree suñ ñàkk dox ko mat sëkk saa seel na yàlla yàggale suñu kanam yaa rabbi amuñ sikki sàkk na Seydi Ali war a yar ndax jëfi bi wane na ko xam-xam bi wane na ko orma gi na ko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 لم يقع تكوين ما خلق شمس ولا قمر إليك مستندي فاجعل محبته عيشي ونصرته سعي ومعناه مصداقا لمعتقدي ان نحاسي كريم به ضرا وروح بذكراه على كبدي فإن تشهد لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر عن مدد الحضرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi caada mbokk yi góor yi góor ak jigéen mag ak ndaw ngi di gërëm ñëpp ci seen taxawaay waaye jiital ci nuyoo suñu Seyda Ndeye Aida xam ne teewaayam fii tey ñu ngi teewloo ci moom baayam ak sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñu doon dàccu Mawlana Cheikh Ibrahim tey buñ ko gisee daj ko ndax ñu ci anam yi xam ñu gis ngeen ko waxuma la wër ngir dimbalante mbokk yi ci yàlla waaye ànd ak bi nga xam ne jëloo ko fenn ci bàyyam mi nga xam ne moo doon wax ne bi day بجهل وخفية دواما ومثل اليوم في ذاك ليله وتخلف جئت معي بكم مولانا الجليل جلاله من الصادق المصدوق أحمد نقله بيومي أتلوه بجهل وخفية دواما ومثل اليوم في ذاك ليله فأنا أبصرت عيناك أحلام عيشة من العبد فهو الحمد لله كله سريان شي تقو تيرال دي كو جانغ دي ايغا تواتي مو ملني ني روي باي واي ني ديغلو دي غلا مو مي خامني مو واخون شي تيرال باي تبي من على اتجاهه ان يكون قوي الصله بالقران لكان مثل المنبه ومن فلا شيء مرتبه القران ñu ngi koy di ko ziyaara di ñaan ci buntam yàlla tëbb ñu ci madina Mawlana Cheikh Ibrahim ak buntu turandooram ñi nga xam ne mooy Sayyidatu Maam Astu Jaxta yaay Mawlana Cheikh Ibrahim wa ummuhu Aïchatun siddiqatun am na ay nay dum na barhaam ya aswaatina bi yaaram sàggal di ko jur sàggal di ko jur ñu ko di nuyu mbooloo mi suñu nijaay Cheikh Mouhamed El Amin di nga Cheikh El Hadj Hussein di nuyu El Hadj Baba Touré Seyd Mouhamed El Amin di nuyu Oustaz Baye Diassé di nuyu Seyd Alassane Diagne di nuyu Seyd Fodé Diop Oustaz Ahmed Dame Niang Oustaz El Hadj Thiam rajo Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moo sos jotaay bi di nuyu Cheikh Ibrahim Sow. لنور الشيخ التجاني سن البداية جامع الشيخ محمد نور الدين di nuyu ñi ànd ak ñoo fi xam ne Ustaz Hafiz bi tey tudd na leen ñoom Seyd Abul Fathi Cheikh Baye Cheikh Ahmed El Bachir Ngelan Cheikh Ustaz Youssouf bi tey Cheikh Ndiaye Moustapha Ndaw Samba Diop Mame Baye Diop Mohamed El Ghalial Mohamed Lo Ustaz Hafiz bi tey mu leen doon tudd di ñaanal yàlla boole ci loolu dimbale ñu Gambie dimbale ñu Sénégal waaye dimbale mbooloo jullit ñi fi mën a nekk ñu sant yàlla bu baax ci jotaay yi nga xam ne jotaay yàlla la te namm namm bi ci gën a màgg mooy nit ñi eh, doxaat jëm ci yoon yu baax jëm ci yoon yu jub te yoon yu baax moom ak yoon yu jub boobu nit mënu faa dem te fekk ne dafa gëmu ay bëtam ku gëmu ay bëtam nag mooy kuréel kuréel dafa soxla ko xam pour mu leeralal ko bàyyi wax na ne problème yu bëri yu ñuy tawat ci àddina dara indiwu ko lu dul réeréer bi ñu réeree shariat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dara mënu koo dibi lu dul delluwaat jàngi sharia bi xàmmee ràññee pour mun koo jëfee ndax mu ne nit bu amut ak leeru xam-xam dafay nekk ku dese ku dese mooy kan mooy koo xam ne bu nit ñi defee lu baax mu def lu baax ànd ak ñoom ma réeral loolu bu nit ñi defee lu bon mu def lu bon ànd ak ñoom ndax li ko yitteel mooy ne nit ñaa koy def boo demee ba jàng nag ànd ak leeru xam-xam bu nit ñi defee lu baax xam-xam moo lay jàngal ne roy ci baax la waaye xam-xam moo lay jàngal ne bu nit defee lu bon lu bon ndax lu bon bu ko ñëpp di def lu tax mu baax lu baax rek bu ko ñëpp sàgganee lu tax day sax di leen lu baax rek ñu tànnoon bayt boo xamante ni xaw ma ni ñu ko déggee ndax noonu laa ko déggee waaye danaa ko wax man ni ma ko déggee maanaam Cheikh Baye wax ci xasidaam manasik ahli bidan nga xam ne ci diwaan yu yéeme yi la bokk ci xasida uriidu bi xayril xalqi xayra maraari dafa shakka wal asmaa wa kulla miraari nga xam ne mi ko tëgg ci baxru tawi mi nga xam ne lu gën a bëri lu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boobu la baxru la ko am te ñooñ arab daan nañ wax ne daan nañ wax ne tawilun lahu duna albuxuri fadail faulun mafail faulun mafail baxru tawi am na nga leen lu bëri mu ne si mboolem baxru yu utee moom ndax lim mun a enu amaana yeneen baxru yi mënuñ ko en xam nga loolu mun a دخل باطل وبي يرفع الجو العظيم وانه بفيض ينال الدين رفع لواء يقول ما مرض من رفع بدنه وبقول دخل شنو مني مجزورة من مني صاحت بي المغاني استبد دون الغواني حمنا يوسف وحمنا قليل وشاعر من جان ساقي بحر دوري في بحر يداني فوق نحن طويل من بقعته إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل بتاي dañu ci am itteel a wax waaye ma ne waxtaanee bayti bi mu ngeen a déggee di fay bi ci fay man ma bugg a wax ne di fay bi ci samay may lu tax du waxtaanee yooni bàyyi waxtaan ci bayti bi wax nañ waxtaan boobu kan lay wax loolu lépp mu ngi tënku ci ne من كل في الكون من يقول الله الله àddina du taxaw mu ko bu fekk am na ku nekk ci kaw suuf di tudd yàlla di wax allah allah borom xam-xam ne jaare nañ ci xadis boobu saxal ne ak dikru bi laf lañ mu xet dara nekk si mu ne tudd allah allah ndax am na ñeneen ñu taxaw mujarradu yajuuzu mutlaqa dikru bihi kuran atlaq محققة ثالثها التفصيل ذو النهاية له يجوز دون ذي البداية وإنما المشهور ذاك الأول والشاذلية عليه عول وكم عجيبة أتى بها ابنها والحق لا يرتاب فيه ذنها بالكبرى التي اسم مجرد الله وقول الله ثم ظهر في خوضه يرعب لا نكتب عملنا من تبرهم عمل ne koo xam ne ci tàmbali nga nekk la ilaha illallah moom dana kawe ci sama xam insha allah waaye ku dem ba nga xam ne jeexal na xaw ma ku jeexal fu ñu féetee moom mun naa wax allah waaye boo demee ci chadili yi nga xam ne tariqa imaam chadili ñoom saxal nañ loolu mën nañ cee tudd yàlla ku mel ni ibnu ajiba wax na ci ay wax yu yéeme kon li fekk nit a ngi tudd yàlla rek nga xam ne àddina bi damagu fenn te nit war na di fàttali ko yàlla ci mbooloo ne anam bi وحيانا سبحانه وتعالى مؤمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم وأنفسهم أولئك هم الفاسقون رب الله مويدة لكلي بايتري تيت بكاري مبيع بكاري مبيع يوم دون دون بكو خير ndax doñ yi ndaw yi dajaloo bi ñu dajaloo moo fi indi mu tey waaye bu la yàlla xiiree ba nga tey bi mag yi yàlla mën na laa jébal lu mag yi nte tani bu kabaare wa maa tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum wa nudkhilkum madkhalan karima ku ne war naa xool mu ñuy xamul ëllëgam lan yàlla daf ne ëllëg ñu jógee ci jege alaxira duñ dégg wala daf ne ëllëg ñu xam ne ñaari farak nekk tey àddina la suba alaxira ragal leen yàlla ci benn ndigal yi mooy ittaqullaaha bu nekk wattaqullaaha ragal leen yàlla ci bàyyi ay yunkar ndax yàlla xam na li ngeen nekk nit ki bu demee ba mu óor ko rek ne yàlla subhaanahu wa taala xam na lu nekk loolu rek beneen yàlla waaye loolu nit bu ñu cee dox àggal boo xam loolu nit ki da cee soxla seen boo xamante ne dafa amat jëmale ko ci loolu. bu leen bokk ci ñu mel ne ñu fàtte yàlla

kër gi day am bés fee ci mooy kër gi nga xam ne yaa ngi doon tabax fii bu dee mbaax nga ko tabaxee ak yiw boo demee mu yaay du toll kenn bu dee safaan nga ko tabaxee boo demee loolu rek nga fay fay bàyyi wax ci béykat yi ne boo bii ci man moom mooy kan moom mooy mooy Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ku nekk rek ak xaalis bi ñu koy xamee ku nekk ak xaalis bi ñu dundal moom waaye mbooleem xaalis yooyu boo leen dajale woon lépp mbaax rek lay ku ne mën naa xam ne bàyyi kenn moom xaalis bi muy jóg waaye ñun nit boo leen dajale woon boo leen dajale woon li ñuy wax mbaax rek la mel ni boo ko xam dafa bind benn baat bind xaa xarful xaay bind xarful baari bind xarful raari xale bi maam ci benn dem ci benn tomb ñu ñëw ñu lii ku ne rek xaaral ñu lii am na koo xamante ne ku doy ko moom bu ñëwee xabaar rek lay def bu nekkee ak tura tura xiin nag boo ñëwee xub jugee bi mooy nag bàyyi ku ne rek koy xam ne kéem ñuy dundee ak moom ci lu gàtt mooy doomu yaa su jàkk waaye doomu mooy doomu yu xayaa وحياة الله يمر خمنا خمت وإلى ربع شيخ به ملئت أماكن سالم فخرا ثريبا من فخار الأجداد ثم سرى فيها فعم فخاره كل البلاد بكل سعد أسعد ما إن يرى إلا معلم طالب ما إن يرى إلا معلم طالب ومقيل ذي عثر ومكسب المشتري بايام موي سيرين بو ماك بوغا خامتاني مولم تندو سالمي امنا كوكاري وما دون كوكاري وشي بوتام تاو ماكو فسخال سي اي كرانغا موي مي على تي جامي جاونو مسختي سالم فه فه فندل فسال فخم خم فسال فطوك يالا فسال فندل ba nga xam ne nit ki ko fekk rejone da koo fekk mu am xam-xam di ko yónni wala nga fekk ku am soxla ñëw di ko daagaan mu fajal ko soxla wala nga fekk ku faxasalu ci yoon mu tegaat ko ci yoon te nit nag balaa nga koy xam da nga koo xool ci ay doomam wala nga xool ko ci ay toppam wala nga xool ko ci ñu koy dikkal والمرء بالأتباع يعرف والفتاوي والبنين الصالحين وبالندي وتواتر العلماء والنقاد بالفضل العظيم الشامل المتمدد. أما حالة الله بن دونفيس أي تقوم القوت كذا من اليمن الأجر. تبارك من تيوح بالليل أي تقوم من تيوح ومنك أحمد بكار والحسن أبي علي من يقود بالرسل ومنك مثل نجل جنب القاضي من حكمه عند الخصام ماضي. دي لنا أنا كمان سمعت أخبارك أنا انكم ملي ابو الحسن موي باي سيدي علي الحسن سيسن انكم ملي احمد بوكار مي الخم انكم ملي انكم ملي واي بودي اي دوم لاي كاي خولي بودي اني لين ما دوم دي ملي سوي دوم باي ذلك الخليفة الذي تعلم منه ومنه فتح والتقدم أين شيء الكبير بحر علم وفاش في السماء كل القوم رد عن الشيخ على الفخور وصير العالم كرجه له تواليف له اشعار رائقه لنا بها افتخار tudd xool ko mel ni moom xalifa ci xam-xam ba ci taalifee ci rafetal ya te lépp loo xam ba ba rawee ba ñuy nekk ndaw keneen pour moom jëlee ko kenn du ci baayam ana ku mel ni alxaaji Mouhamad Zeyna ana ku mel ni alxaaji Omar ana ku mel ni cheikhu xalif ومن كمثل الشيخ ومن كمثل الشيخ أعني عمر في الفقه والنحو صغيرا ظهر تبدو من المثل كن بوي بيس أنا خمه الحاج عبد الله هما بني moo comment bu ko xamante ne moom Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu وعجوبة الأزمان والبلدان حلال المشاكل في العصر المتعقل بحر الشريعة بحر الشريعة والحقيقة كعبة السعداء حاسم البطن كل يندد أنصته ملأ الأماكن فتح ينصب في الطرقات غير مقيد نسق الحواضر والبوادي والفلا ما بين مهبط شمسها والمصعد لا يمكن التعبير عنه بالنسبه لعلو بيض خصاله ومساله. دون برمجو يخلنا نوع وبيما كم كان ما لم تكن عبارة عنه. كم يكن يخلنا ميلم تون. تنين أه. ملك ولا kooku mooy kii ko leeral te li lëntoon bëri na lool am na yoo xam ne dañ ci doon ragal lool nit ñi buñ ci wax am na ci yoo xam ne dañ ci doon tànn lool nit ñi heure buñ ci wax am na ci yoo xam ne dañ ci doon dig nit ñi digal boo xamante ne du wet moom bu ñëwee loolu lépp la leer ndax ñi xamoon ak ñoom xamoon nañ ne bu ñëwee mbooleem boo ci dana wuññeeku li nga boon te yor koo xam ci mbaax dana wuññeeku ñi doon naxee tamit dañu xam ne ñi ay naxekat am na borom xam-xam ci Mauritanie boo xam ne gannaaw bi ñu jàngee ba dajal xam-xam gisatul waasam am masala bu ko tër dafa wër ba sonn borom xam-xam bu ko gàggal ci gisu ko mu ñëw Sénégal dégg mbiram bàyyi ne xaaral ma dem seetu ba mu ñëwee laaj ko masalaam bàyyi jox ko kaasi faral baas dem ñetti fan dem si delloo ko kaasi faral baasam ne ko mokkal naa téere bi waaye damaa ko jàpp ceeb ci ñetti charge saa yoo bëggee ñëw ñëw bi ñoo fekkoon samay bàyyi dama ci nekk saa yoo ma bëggee soxla dama lay saa yoo ma soxlaa bëgg laa gis dama lay gis bàyyi na ko nangu li mu dajaloon ci xam-xam yëpp mbaay jox na ko benn téere boo xam ne amaana boo demoon benn satala wala benn baat moo ko ci kon li mu doon leeral na ko géej la ci sharia ay taalibam ci sharia wane na ko ay jëfam ci sharia yi wane na ko jiit na ci xaqiqa ba sax moom mooy demee xaqiqa lépp lu doon caaxaan lu ñëwoon balaa moom doon na ko turam fees na àddina te liñ ko feesee mooy lépp ñu bëgg a jëriñu yëpp jëriñu nañ ci buntam waaye liñ jëriñoo ci buntam kawe na kawe boo xamante ne nit bu doon tudd mën nga tudd lépp te loolu lépp amu ko ci buntu caaxaan ak mbosoo déedéet bàyyam bi mu tuddee xaaji Abdullahi ci jàng ci kanamam la ko xamee ndax Mawlana Cheikh Ibrahim xam-xam yi nga xam ne nit ci faggu la koy amee xam-xam yi nga xam la ko xam yooyu ci loxoom ba jàppal la waaye xam-xam yi nga xam ne yàlla mooy tànn ko neex jiital ko may ko ci loo xamante ne ñëpp mën nañ cee jëriñu yàlla it moo tànn Mawlana Cheikh Ibrahim bu nekk buntu wala wala moo ko tànn mu rafet mu may ko xam-xam boobu mooy ki ko wéyoon moo ko ne wa man axada al uluma bi kulli wajhin saxiixin laysa fiihi min ittiraab jël na xam-xam waaye ci anam yi gën a wér ñëpp la ko jëlee jàng am xam-xam ndax nit gi mu war a feeñal ëllëg mayam gi ni ci war a dimbalee lislaam mënta amee ci ron baasu réer il faut ci baasu xam-xam rek la mën a amee moo tax dafa jàng xam ba nga xam ne ñi jamono wante moom xam ràññee nangu nekk ne kii daal dayo bi am ci xam-xam am nañu yegg sax ne jàng waaye moom moom mi wax ne xam-xam dafa ko jàng ba soxla wéy dina loolu

من خطب في القلب ولاجة ما لا تولج حداد الإبر في دعوة إلى سبيل الهدى يهدي بها الله قلوب البشر لا يسمع الشيطان إلقاءها إلا وأدبر وولى وفر تنفي الجموع تلقاءها عفوا وتنساق إليها الزمر تصغي إليها شذرة شذرة تشمف الآذان تلك الشذر وحر راعها وقرائها نور البصيرة ونور البصر فيصبح الفاجر من فضلها برا ويمسي البر يدعى على بر. تفجعوا بعض خلقهم. ويخلقهم من نيل وقوم غير ان سخلقهم فوق النقل غيره. وان يكب ينقل يغير ويجعل ينقل جنر فخلقهم يعرض جنر. العلم يحيى بالتعليم يحيى بالاقراء وبالتاليف. خلقهم يعرض جنر. ما يجي ثالث ولا يجي جنر.

nit ñi ngay gis ñuy dajaloo di déglu waxi baay moo tax waxam ak wax bi wax ci moom yëpp a neex li waaj waxoon xadiisu woo xadiisu an mu wax ci moom wax ci moom wala ay waxam yëpp a neex ndax waxam kenn kenn du ko déglu ba yokkaat حوى مقاما سنيا عنه المشايخ كل شيخ تقي نقي حديثه لا يمل احمد ايان سيرم كل ويلك بعد فلاق مقام ممر وقتا كان شيوخ مو وقتا من وقتا كان شيوخ ku ko dégg ay waxam pare koo jëfee bu la fekkoon ci moom daf la yóbbu ci baax bu la fekkee ci mbaax daf la yóbbu ci gën te loolu xam-xam bu wér moo ko xamee mu jàngee ko ci bàyyam alxaaj abdullah bi nga xam ne moom rek mooy sëñeen ndax ba koy défendre ci benn xasidaam wax na ne wa innani saliluhu fa kayfa asifuhu wa hal utiqu wasfa lakin man ala kulli qitrin qasada bukannya bapak melal fatul kuna doron melal dafay gisal mom ndax melal sa bay moy melal sa bop waye bu fatul ko ni moy serigne bu wala ko mo melal ndax moko jangal te lo la ko wara fay te borom xam-xam su yaa ngi dañuy wax ne xaqun ala tilmid an yantasira bil xaqi li cheikh sawaa xadara aw xaaba aw bi qabrihi abi ubi mu ne aqala ci taalibe mu defandal serigne ci dëgg moo xam sëriñ bi mu téye wala mu fàtte moo xam mu dund wala mu dee xasana juusi loolu la saxal ci xàll kon bu demee ba fàttali ko mooy sëriñam jazallahu anni walidi wa muallimi ladaa xadrati mannaan kulli jazaay fàttali ko mooy sëriñam jàngal ko comme keneen ku jub dal ci kawam war na koo defaan ci buñ seen maa ngi defaan ni sama sëriñ bi nga xamante ne moo jàngal xamal ma ne xam-xam boobu yi nga xam ne dañ koy jàng xam ko yàlla ko ci may jàppandal waaye li nga xam ne ay mawaahib la may may lay tukkee ci yàlla yàlla ko tànn pour mu nekk ki nga xamante ne moo koy am mu nekk moom Cheikh Ibrahim buntu njub waaye yëkkati jënd bu màgg bi nga xamante ne mooy réere yàlla ku mën a gis ku ne doo soxla dëgg pour xam ne moo laa Cheikh Ibrahim ni kat borom maqaama la لا جبلة يا شهد الشيوخ ذو شهد الشيوخ ذو الرسوخ بأنه شهد الشيوخ ذوي الرسوخ بأنه ورث الخلافة عن أبي عباس برم أقام يأم تسلا يتخنخم من يبقى عند السيد الدورمين كذا الخلافة لدينا مجيب الشيخ يعني ونكون قوانا جمله ndax mu bëgg yàlla gi du tàggal dina yàlla dafa nam taxawal ba sëy te ku yàlla dimbale balaa ñu lay indi dalil ngay gëm am na ñoo xam ne boo leen indi loon boo leen kawteel yi boo leen tegtal yi du tax tegtal yooyu lu mu bëri bëri ak lu mu wér wér du leen yokku lu mu gën a wér لكنما الإنسان حيث جهل عدا وأنكر نعم وعدل nit boo ko fekkee ci mbir mu réeré ñaari taxawaay la ci am mooy bu ñu ko mu wéddi ko wala mu ci yedd ay yeddaane yoo xamante ne mooy wax ne bu bu ngeen ko wala Cheikh Ibrahim mooy nga ne nag yàllaa ko tànn may ko xam-xam tànnal ko ay waajur yu yar ko yaru rafet ci buntu baayam jàngal ko jubal ko moom mooy wax ci bayti bi ne ci man dañuy yëkkatee jenn bu mag bi keneen dama ko firi jenn bu mag bi yëkkati ko woon ci nit ku nekk mooy nit ki nekk jaamu yàlla bu xam yàlla ba pare di jëfee ci kaw xam dana ko firi ci beneen xasida mooy fu muy wax ne ci shifaawul asqam ne fa biir faw jawrul azim fala yura siwa al ilmi والدين الحنيف يزين فتمسي رجال الله في ظل راحة وعز وتمجيد وبالحق أعلم يكون زمام العالمين جميعهم بأيدي رجال بالعلوم تمكنوا فيأتي مسيح والرجال رجاله بدين الإمام الهاشمي يتدين هنالك عم الخير لا شك لن ترى سوى عارف بالله والشرع المتقن. من الجنة ما بيجي من الكوية doo gis lu dul xam-xam doo gis lu dul diine bu jëng wala si yoon yi jubati góor yàlla yi nekk ci noflaay noflaayu góor yàlla yi mooy ñu dox ci raay yi dox seen diggante seen borom nekk ci teraanga teraanga mooy teraanga bu jugee ci yàlla laa tatlubu l-izza lada l-xalqi bila ta'azzuzin inda l-malik laa wala kisaabu teraanga teraanga bu ci yàlla boo ko ci yàlla am ko دي فورال دق ديوان دق تفكر لان نوكا عندنا من تي لوخو ميو خمانتي دق لا جاب خم خم لا جاب ليل خم خم لا ني دوي مو ايسا نيو غور مو مل نون لا في فك مو فوف لاي فاي دي ماتي دو غيس وجود كو خم يالا اك شريعه بن خريه شوفوا بلا فايدو بدي متى فوف فايد فايدو من متى جي نورنا كوسا فايدو ما ما دانا يدي خم يالا بفر يدي رفتل خم خم شريعة نخو العلم علماني علم ظاهر وضعت له الصحائف مسموع ومضطرب وباطل جل عن سمع وعن نظر بالروح والقلب مختص ومنفرد خم خم يالا خم خم يالا خم خم بو خم لك تتيري لك góorgóorlu ak am ustaas bu lay jàngal moo la ci dimbale mooy yow nga sawar ba pare am borom xam-xam bu sawar te xam mooy benn wàll bi benn wàll bi xam-xamu baaxul la xol ak rooko ñoo ko yelloo foo koy jëlee mooy da ngay am ku mën a tëbbaate mu la koy tëb mënuñ la koo wax ba nga yëg ko waaye ci mos ko nga koy yëgee lakinnahu بدون ذوق نادر والذوق يغني فيه عن معدل ku ko mosul mënu koo xam ku dem ba mos ko loolu dana ko doy walis keneen di ko leeralati ndax walaysa ba'da al-ayaani bayaan ñaari xam-xam yooyu bàyyi mu ne diinul diinaani imaan wa ishraaq diine bi imaan la gëm yàlla gëm ay yonentam nangu ay dogalam te lépp loo jëf te teguwul ci gëm yàlla loolu yàlla du ko ndax jëf ju sori gëm yàlla dafa mel ni ku jëful rek beneen bi mooy diina ju bon ji mooy bokkaale yàlla subhaanahu wa taala bàyyi mu ne nag bokkaale boobu ci moom la yàlla di yëkkatee lu ko yàlla di yëkkatee ci moom mooy da ngay ñëw jàpp ci moom mu teg la ci yoon yu baax bokkaale ay xeet la am na bokkaale boo xam ne bokkaale bu leer la mooy bokkaale yéeféer yi mooy alladina yad'una ma allahi ilahan axar la burhana lahu bihi fa innama xisaabuhu inda rabbihi innahu la yuflihu lkafirun ñoom ak yàlla la mooy yàlla ci boppam lañ bëgg a utal nen اتخذوا من دون الله آلهة تنجون كن تشيال يا الله سبحانه وتعالى كن الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو موي بروم كاتان مو دوتو دي مو ام تدو نياك مو خام تدو رير مو نيك فيب تا فاتو وريس بار كيب كوكو بوغا انديل نند نيو يا ني بوكالي بوكالي بماك boo tuubul ci bokkaale moom safara mooy sa dëkkuwaay ndax loolu weddi la te ñi weddi yàlla li leen xamul bés fee ci mooy safara ñaareelu bokkaale bi bokkaale la boo xamante ne bokkaale bu nëbbu la mi ngi feeñ ci ay jëf te boo jàppee ku mel ni Cheikh Ibrahim daf lay génnee ci mbooleem xeeti bokkaale yi bokkaale ci jëf mooy lan mooy nit di def ngir nit wala bàyyi ngir nit عياد دفوحنا قاضي عياد دفنا العمل لاجل الناس شرك وترك العمل لاجل الناس كفر والراحة لك ان يريحك الله منهما من الجف تنين يرتخ لون ما يريع ما ينجسل من لون بوك على عقل من درجة موين لو def buñ la ci santé nga gëna gor gor buñ la ci ngañé nga bok man dara ga moy bu nit ñi toogee nga sawar nga sawar bu baax ci lu baax boo wéetee yow kese yaa fuus mu ne bàyyi nag bàyyi mbir mi ngir ne dangay bañ nit ñi gis la loolu loolu weddi yàlla la jàmm daal mooy yàlla génne la ci ñaari wéer te loolu mënoo ko am lu danga dem ma xam yàlla ku xam yàlla buy def day xam ne dara nekku fi yàlla rek a fi nekk ndax moom gisul lu yàlla bay seedaloo diw wala muy nëbbu diw ومن يدعي العرفان وهو مشاهد سوى الله في دعواه ليس بصادق او تخم يا الله بقرة يا إنجي سنة نقول يا الله بقوي سيدنا ولا بقرة مرة لكن تالي أو دنا ندق تيو أم بكنا نبو موي ريري يا الله سبحانه وتعالى ولا أتن في الله نعم ولا تكفي سبكان بي سخل الله أمام te fekk ne amul lu dëgg amal lu wér tey dëgg mooy amal yàlla bi subhanahu wa taala mooy li Baay wax ne fa in lam tajid illa al ilaha muharrikan wala sakinan talqa al jamala bi ajmain wala Cheikh Ibrahim ne jéng bu mel noonu mooy bokkaale yàlla mooy nekkul ab jullit xaalis boo dajee moom mën na la cee génn te buñ xoolee ay jàngal wane na mooy bokkaale bu mag bi bu feeñ bi génnee na ci ay nit mooy dox ci àddina pour oote ci yàlla asiru ila kulli nawaaxi laallani ara amali fi llahi wa huwa kabiru ya rabba jibril al amin li tasmaa duaa garibin dalla wa huwa xaqiru wa himmatuhu rafu alxanifati mualiyan liraayatiha wal awdu minka yasiru di dox ci àddina lépp ngir gis bëgg-bëggam bëgg-bëggam mooy jullit ñi nekk benn bëgg-bëggam mooy ku nekkutoon jullit mu xool la nga nekk jullit te journaliste bi nga ko laajee yow luy sa luy sa lan nga sa bi ci lan nga ko teg def ne ko góorgóorlu ba oo nit ñi nga xam ne duñ jullit ci anam bu mu leen mën a oowee ci anam yu baax yi ba indi leen ci lislaam boo ko defee te ànd ak xabool yàlla yàlla foo koo tàggatal xeeb yu utee yi nga xam ne wax na ci ñoom ne اختلفت ألسنهم والقصد متحد حقا لرب الحمد لم لم نعوسي نان نان نبري نون نجمو واي نبري جابو نجمو الإسلام ما خمنا بام وخينا فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله فقالها الكفار والمجوس والأمراء فطابت النفوس كذلك النساء فالتوحيد هنا مصور لواء مجيد كذاك في تملي حين قلت كلمة التوحيد إذ نطقت أنطقت كل القول بشهادة وهم ألوف قبل السعادة تتمل تيرند بتيغانا تيرند من هو وحي لا إله إلا الله محمد رسول الله نيا خمنا أي بلغ من يكني لجمع تلوم ما يجمع بما بفعل جن نجي جمع بنيان أي جلد أي خير يؤدي تجيب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا لنتيجه ba tey bi mooy jëf te nit tax te ci xeetu jàng yi wala bàyyi te nit tax génnee na ci ci ay nit ba xam ne ñoom gisatuñ kenn sax yàlla rek la ñu gis te ba tey xaal boobu nit ñaan ci romb di gis nit boo xam ne bu jàppee askaaru tarbiya dana dox ci lëndëm boo xam ne bis bu jeexalee askaaru tarbiya yi boo ko fu jaar loolu mooy kon kooku yàlla génnee na ko ci buntu Mawlaa Cheikh Ibrahim ci def ngir ngir nit wala bàyyi ngir nit ko buy def yàlla rek moy tax buy def te def te yàlla rek tax loolu moy egg ci haqiqatu ikhlas haqiqatu ikhlas bàyyi nga fi firi sur la ko wax moy mu dem ba mo wóor la ne jëf ji wu ci yow te jëmul ci yow def def ak yàlla la yàlla moko def mo rafet mo askan la ikhlasuka al amala an taataqida fi'la ilahika alladi qad awjada ثم عليك شكره لأنه كانت له به عليك منة لولا هداه جل ما وفقت لذا الذي من أجله قد خلقته سلا الجيف وين قد بفص خلنا لي دال جف يلا يلا بمبارك حسن الله باي بنا لنا جنة من نبي لفنا لنا ونفسك من جملة الخلق تبغى جف يلا تقول والله سمت يلا لو سمت يلا دخلنا خير بيجي يلا الجليل وما بكم من نعمة فمن الله ndax bu taxutoo nag mbaax yàlla jëf ju rafet jooju yàlla du ko feeñalee ci sa jëmm ji kon ñaareel jeng boobu nga xamante ñaareel jeng boobu tamit yàlla yëkkati na ko ci ay nit ci barke wala Cheikh Ibrahim ak ci jàngale waaye bokkaale bi gën a nëbbu mooy gis am ak leneen lu dul yàlla gis am am ak leneen lu dul yàlla ci dëgg wala Cheikh Ibrahim yëkkati na ndax ñi jàpp ci moom yëpp ci foofu lañ mujj ndax ba ñuy ñëw tegoon nañ yoo xam ne ak yiñ jàppoon ne mbir mi noonu la demee bañ demee ba àgg ci borom ndigal mooy Mawlana Cheikh Ibrahim xam nañ ne liñ jàppoon du noona Ahmad Jibrima xam ne mag la ci mag ñi ci Nigéria gannaaw bi mu jàppee ci bàyyi tarbiya yegg ci yàlla سنسني بعد أن يوعد أمك وأخني والله يا إبراهيم لو مت قبل هذا مت مصرا على الشرك وأنا لا أدري ما عندي جنس يا الله نعم ما ديون يكتاي جيني دنا ديت فكر ما نور تبوك على الله خامجة الإمام الشافعي دقر تي من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الشرك وهو لا يدري سي خم خم بي كوتشي دوغوت dana dee te fekk ne yaa ngi nuur ci bàkkaar ci bàkkaare bokkaale yàlla te xamoo ci dara te ñu ñëwoon ci bàyyi loolu lañ doon yëg ci seen bopp bañ ñëwee bàyyi génnee leen ci loolu lépp saxal leen jaaral leen ci buntu boo xamante ni ñoom saxal nañ am ak yàlla warat na cheikh ibrahima hiima li nashraba faydahu xatta nahima fa asa wa xijabuna alayhi bahimun yuzilu an alxija al leyla albahima wàcc nañ ci déngale Cheikh Ibrahim te fekk ne ñi ngi mar bëgg naan ci faydoom bi ba màndi amaana ñëw nañ fi ànd ak lëndëm balaa ñu fee jugee lëndëm boobu dana yëkkati ko lëndëm boobu mooy lëndëm bokkaale yàlla lëndëm bi mooy lëndëm yi gis amal la nga nuyu yàlla te bàyyi daf lay teg ci yoon woo xamante ni daf lay génnee ci loolu te dabbari adkaara yaa muaadu wa rabbuna almuhayminu almalaadu wal taqtai nadar an siwaahu xata ida lam yabqa illa allahu إنما الفتح لدى الأعيان تركك ما سواه بالإقان askar yaa ngi noonu jàng ko nga xalam ci te xam ne wéeruwaay bi kii not lépp yàlla la dogal sa gis gis wëris gis amal leneen lu dul yàlla boo demee ba gisatoo amal leneen yàlla mu ne fat ko ci gaañ ni loolu la waaye da nga fekk la fatu ci man nangam la da nga fekk mu la fatu ko du moom mooy xam yàlla waaye buntu la ci xam ndax Fatick dafa niroog tur bi bu ne laaw di xam ne kër gi fukki néeg a fi nekk wala ñaar fukki néeg a fi nekk ak yeneen détails yi nga xamante ne détails yu bëri. loolu la gën a sori kon jafe-jafe boobu jéng bu màgg boobu nga xam ne mooy bokkaale yàlla comme niñ ko toppee ak façon am yëpp moo daan Cheikh Ibrahima ba mu waxee ne moo koy yëkkati ci moom la ko yàlla di yëkkatee waxut maa koy yëkkati ci man la ko yàlla di yëkkatee. yëkkati boobu am na te saxal na ko ne wa inni اعتنقوا هذه اعتنقوا هذه الطريقة بواسطتنا نحن وعدد أوفر منهم وعدد أوفر منهم كانوا قبل اتصالهم بنا كفارا أو مجوسا وعددا أوفر منهم وصلوا إلى الله بالشهود والعياذ لا بالدليل والقرآن. خمنا naa lu mat fukki yoo xam ne jàpp nañ ci tariqa tijaaniya bi ci sama sabab ñooñu génn nañ ci riyaa bu ci jàng bu diggu doowul mooy jëf jiw tax am ñu ëpp ñooñu ñoo xam ne balaa ñuy jàpp ci man ay yéefar la ñu woon nañ ci jàng bu gën a fekk ak ñeneen ñoo xam ne ñu ëpp ñooñu ñëpp yoo xam ne egg nañ ci yàlla subhaanahu wa xam ko nekk ay aarif ñooñu mooy ñi nga xam ne ji génn nañ ci jàng bi gën a màgg gën a nëbbu mooy jàng am ak leneen lu dul yàlla kon boo xee ne bu bii yu faaw jawrul azim dëgg-dëgg jawru boobu yàlla yëkkati na ko ci dund. wa innahu bi faydi yanaalu diinu rafa liwaali wa innahu bi faydi bu dee dañoo firee faydi mooy faydi lu jàppale. waaye mën naa nekk may-mayam ngi moom bi faydiya faydul barri wal bahri jumlatan wa inni nafsu lil amini wa sahbihi des ak géej buñ ko firee ci firee ak des ak jéeri gi seen des ak seen sax tëgg mbóot mi ngi jugee ci sama bopp bi man ci sama may gi man xam nga ne may boobu may bu yaatu la may bu rëy la may bu kawe la waaye bu dee dañ koo firee faydu luñ mën a dégg la ndax faydu bi jamono lu gën leen borom moo fi nekk xanaa borom delloo diine ji dana amee yëkkatiku ci mayam wala diine gi dana amee yëkkatiku ci fay doom loolu mooy lan buñ moom saxal la ndax dem na ci ay dëkk ci Accra Takra yi wax ne dëkk yi daal ba mu fi ñëwee dafa mel ni kuy oote ci yàlla mosu fee jaar leen lay ñaan nag mooy yàlla ko yàlla ubbee sama làmmiñ mooy xam-xam bi yàlla ko yàlla ubbee sama kër bi te mooy fay loolu te loolu lépp ay waxam moom moo fi ay waxam ñooy firi ay waxam ndax ba mu waxee ne lakinna ankara ila takuraadi ma balagathum dawatun min haadi سألت ربي وهو خير مجزلي يفتحها بمدفعي ومقولي سألت ربي أن ينيل مقصدي حتى أرى كل القرون تهتدي فلا أنال راحة لقلبي وفي البسيطة يعاصى ربي لا سيما إفريقيا الغربية هداهم للملة المرضية ما من أكره تقرأ هذه كل كل جملة لا مسفينها تجارنا أكرا أكرا بي مجارفة أكرا من بيون مبيتو إلى سيراليون وجئت أنكرا وأنكرا في هذه ما أنكرا jaaroon naa fi nanguwul waaye bi yoon moom Ankara maa ngi ñaan sama borom mu fàttali fàttali fàttali ñu ne julli ngandaayam mooy ñaan maa ngi ñaan sama borom te moom kii bëril may mu ubbi ci sama kënu تكلم بي بمي واحد آه من عبا شي قصيدة بي فجد صدقا وبالمولى الكريم ثقي يا من له كل أصل في العلا عريقي أنا فاكر كبير من كان ومدفع الشيخ أعني فاد من بعد يرمي متى فاض كل الصحب في الغرق مولاه كانوا شيخ تجاري اللي ما كانوا مشي كانوا شيخ تجاري ما يفعلوا بوبو بيرك نبلي نورا تجي خمياب نبلي naka labal ci géeju xam yàlla mu ne yàlla ko yàlla ubbee ci sama këro bi kon diine ji yàlla mun na koo tasaaree ci buntu faydu nuñ faydu te loolu mi ngi am jamono ju ne waaye ci buntu may ak bàyyi ndax ñun ci buntu moom ñu yàlla may sa wali yu neex ma moom munoo ko fàtte ak ci sama làmmiñ mooy ci waxam yi nga xam ne wax na ne ku koy jëfee kenn du gis yow lu dul lu gërëm loo yàlla lu gërëm loo yonent mu ne maa ngi ñaan sama borom bu may ma samay bëgg-bëgg te bëgg-bëggam mooy mu gis ñëpp tegu ci yoonu njub yàlla yàlla may samay bëgg-bëgg ba ma gis maas gi yëpp tegu ci yoonu njub ndax man du ma pare noppalu mukk te fekk ne am na kuy mooy sama borom rawatina waa Afrique kon. may maye mi buntu la ci tasaare lislaam te liñ ci def loolu lottuloo na ku mun a wax ku ne ay njabootam te mën a njabootam taalibe bi yu yi doomi ndiggam yëpp doomi rooxam dugg nañ ci ñoom ñëpp def nañ ci loo xamante ne lu yéem lu yéem xel ku xelu la ndax boo demee ba nga xam ne euh, ñu ngi lay tuddal lu ëpp téeméeri million ci ay taalibe yoo xam ne dañoo jàpp Euh, ci sa yoon jàpp ci sa jàngale jàpp ci sa dégg-dégg ci yàlla sa dégg-dégg ci xam-xam danañ xam ne dëgg-dëgg diine yëkkati koo ci yow diine nag yëkkati koo diine du mooy jullit ñi bëri ndax affaire bi qualité bi lañ soxla du quantité bu bëri bi àddina ba muy àddina ba tey jullit ñi raw rawuñ ci mbooloo bu bëri ndax ba tey jullit ñëpp ci àddina waaye lu ñu rawee mooy lan mooy seen gëm yàlla li ñu rawee mooy lan mooy kennal yàlla subhanahu wa taala li ñu rawee mooy lan mooy ay jikko yu kawe te rafet a set bépp jikko boo xamante ne jikko boo wàññeeku la li rawee mooy ragal yàlla def ay ndigalam bàyyi ay tere li ñu rawee mooy rafetal jëm seeni seen i mbokku jullit munta euh, euh, rafetal jëm seen mbokku jullit buñ ko mënul ñu bañ a ñaawal jëm ci li ñu rawee mooy ñu rafetal jëm seen bopp mooy bu ñu tarxiisee def lu ñaaw ñu góorgóorlu jàngee ko lu baax te yooyu yëpp ma wax faydu bi kum def jeexital ci yow noonu ngay mel faydu bu defee jeexital ci nit l'islam yëkkati ko ndax jàngaleen l'islam dana feeñ ci yow bàyyi am na journaliste bu laaj ne ko am na benn waay ci Gaana bi ngi bind di la songu di wax ne yow ak sa gars yi daal si guerre la nekk ak yéen ndax gëm-gëm bi ngeen am baax ay bàttal yi ngeen bàyyi la ko gisee ay bàttal na rayante ñoom ñun ay sunni lañ ay suufi yu lañ yoon yéen ci yàlla Muhammad lañ tegu te wax na ko ci lu dul benn wax ne ne di mi sunnatul muxtaar la la ala gayri alxadisi aw mu xayra سأرفعها وأقبضها جهارا على ذا فليلم الناس طرا إذا رضي الأمير فلا أبالي أذم سواه وأطرى وأطرى إذا كان النصيب سوى المخفى فإني لا أرى للحظ دارا هم لي فينال موتا خندي خول جيفي باي خول جيفي باي جاري فنن كي خمت سنة لو لوير سبوكو لكو إني خمي جنة يو خمت سنة لخيه يو خمنا سنة تالي يو باي نجمو لور taalibe baay noonu la war a mel bu baay bu nekk dafay baax waaye taalibe baay bu nekk dafa war a baax. taalibe baay bu nekk dafa war a baax ndax la gis ci sëriñam loolu rek la xam te nag boo fekkee sa sa papa di tëdd dëgg-dëgg war ngaa góorgóorlu ba mën fecc. war ngaa góorgóorlu خيول بيقنا النعمة العظمى الخروج من النفس لأنها أعظم حجاب بينك وبين الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي يعني خيول بيقنا ما قلنا قلنا الإسلام قلنا قم يالله موي نتكي جن نتكي أمة بان يخ بكنا جن نتكي أمة بكنا نخ بكنا بوم موي دخشي ديجن ديم يالله سبحانه وتعالى تبعي وقالنا نه وأعظم وأخبث ما فيها لعمري حرصها على هذه الدنيا الدنيا شموها بكر من يجي شو من يعو بدينا وين من يمشي كنا يعو ما يخير بيا خمن تاني بكر من يكو خير تعدين تين شو فيها كده يو هني دنيا لو حلم ما الإسلام ما الإسلام دال ما ينعرف بكر الإسلام ما ينعرف بكر نيت كنا كنا بوري سيري ترى يسبكان تبون تيارة كتيالا لول ما ينعرف الإسلام يكتبون ndax lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ne ba muy wax ne xeet yi xaw tuut ñu noot leen dajaloo ngir xeex leen dañuy laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax bés boobu moom néew mooy tax yonent bi leen néew leen da ngeen a bëri waaye da ngeen a mel ni fuurit rek ci kaw ndox bu bëri njëriñ kon bëri waaye du ci mbir mi kon yëkëti bu l'islam bi bàyyi di wax ne ci buntu ci fardoom ci mayoom ci mayam lay l'islam di yëkëti yëkkatikoo lislaam ni muy ko ci kenn ku nekk moy mu yëg ci omatu ci jëm ci l'islam wa jëfi lislaam ويعلو لواء الهاشمي وقد هوى لوى الغي والطغيان وهو تعالى إليك ولا أرجو سواك وإن يكن سواك ma ما la نوالا ta yoon bi ñu jaar yëkkati ko liñ ci wane rek mooy ne yëkkati naa lislaam ماذا قال قميل؟ يا جاب جاب رفعت لواء الدين بالذكر صارخا وحبي وودي كان وذكري وودي كان في القلب راسخا فيا ما أحيلا ذكر طه محمد رسول أتى بالذكر للغير ناسخا ألا اعتصموا بالحبل حبل محمد كبارا وأطفالا نسا ومشايخا تفوق رجالا مدلجين قد ادمنوا مسيرا وجابوا فرفدا وسرابخا بوخينا يكتينا تي القران ولا كتب يالا دينا دي تعال نك مبغي يونس يونس دوكو صاح فاتلكو يونس دوكو صاح لا دوكو فاتلكو تذكرت لا اني نسيت محمدا تذكرت والذكرى تكدر لي المحيا تذكرت تذكرت والاشواق والذكرات لنحو رسول الله والزفرات فهل يتاتى حب غير محمد بمضيع nga xam ne du ko fàtte moom nga xam ne yonent boobu nga xam ne indi na alquran mu ñëw nas ko atte beneen téere bu dul moom mu ne maa ngi leen di oo ngeen jàpp ci buumu yonent yàlla Muhammad na alayhi wa sallam jàpp ci alquran jàpp ci l'islam jàpp ci gëm yàlla jàpp ci rafetal seen diggante ak seen borom mag ñeeg ndaw ñi xale yi mag ñeeg jigéen góor ñeeg jigéen ñi mag ñeen ndaw bu ngeen ko defee da ngeen raw ay góor yu bëri yoo xamante ni min nañ dox ci miin nañ dox guddi ci jaamu yàlla waaye man mun naa leen a jaarale yoon boo xam ne du am benn trafic du am benn xat-xat te ñun ñëpp mën nañ bokk fu ñu jëm kii kii am yoon bu jaar rek yegg taf-taf kee bu accès rek yëpp sonn naa coono mu la sonal xanaa xat-xat rek xat bi rek bàyyi nag fi mu lay jaarale amul benn xat-xat ni muy yëkkatee islam mooy euh, nit ñu bëri danañ dugg ci islam dëgg la waaye dana jàngale nit ñi dégg ci moom. xam-xam boo xamanteni ne mosuñ ko déggee fenn te buñ ko déggee ci nekk julli bu baax la leen yóbbale matal jàngale lislaam teg ci li iman waral ci ku nekk teg ci lu ihsaan matal ci ku nekk ndax da nga dégg ci moom muy wax ne xam-xam yi muy wax daal ci yàlla rek la jógee qad samiu faraid al fawaid min madad al alxatmi tijani qaidi wa xadaru bilchaxsi waljanaani liman yaquduhum ila aljinaani nuqan muayadan min al alabnaani yadhunu alqaali min rabbani ku ñëw ak moom teewal sa xol déglu mu jàngale nga jëfee da nga dégg xam-xam bu lay yar na xam-xam di xam-xam bu jugee ci yàlla la te aalim la boo xamante ni ci xam-xam yu ndaw yi la lay yare balaa muy yegg ak yow ci xam-xam yu mag yi ci buntu boobu lay yëkka ci lislaam te loolu mooy itteem te ba sampee dëkkam lool rek la ko la fa indi mooy nit ñi nañ jàng xam jàngale nit ñi nañ tudd yàlla di fuglu yàlla di ko fàttaliku nit ñi nañ jàng alquran di jëfee jëfe alquran waaye nit ñi nañ ubbi seen xol yi sellal ko ba xol yi mën a jëlee ay mëdët yoo xamante ni mi ngi tukkee ci seen ruux seen ruux jëlee ko mu tukkee ci yàlla te loolu nit mënu koo am loolu dafa jàpp ci sëriñ boo xamante ni dafa mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim te itteem ci jaam ñi du mooy mu jël li nekk ci seen loxo waaye mooy li nekk ci xolam ci mbaax mu def ko ci seen xol te boo gisee bàyyi xam-xam yi muy tuur xam-xam yi muy tëbbee jaam yi amul na mu bu ci am lenn la rek mooy gàncaxu xam yàlla gàncaxu kennal yàlla sax ci xol yi jàmm bu nekk moo tax boo koy oote woo li ngay wax war naa ñu moom li muy wax te moom li muy wax kenn du ko wax xet li muy wax kenn du ko dégg xet kenn du dégg ku koy wax nga xet kenn du dégg ku koy jëfee nga xet ndax li wax moo gën rafet limi jëf mo gëna rafet te ku koy jëf ni boole la ci ñu ci ñu gëna rafetal ndax jëf yi او خط زال الغطاء فالحمد لله والمله الحنيفه البيضاء طريقته والعلم حرفته فالحمد لله هو خير لم واخ لك جبلا واي بو بيني يكتي لب لوي لنت لنت تمام واخنا ني كو بغا اندك مو ان فوغ سوبو يونا مي اي وهم تا واخ يي ci ay jëfam yéen ko rafet wa faalul xayra la'allakum tuflihun kon yàlla nañu yàlla def dëgg-dëgg ay taal yoo bàyyi eh, namm namm bi am ci yëkkati diina eh, eh, dégg-dégg bi di nekk ay julli dégg-dégg bi ne ki nekk julli dem ba egg ci mën a rafetal digganteem ak boromam dégg-dégg mooy ki rafetal digganteem ak boromam jëm cee sax xam yàlla dëggal ko dëggal amoon gi xam ay wàccuwaay meloom xam ay wàccuwaay turam wala ay feeñu waay meloom xam ay feeñu waay turam xam feeñu waay jëmmam lu nekk mu xam ko ràññee ko te benn tax mu jaxaseeg leneen lu bokkul te loolu lépp dana ko xam te dana xam ne meew meew la ba tey dana xam ne ndox ndox la ba tey dara soppeeku te ndox am meew mun nañoo jaxasoo nit ki di ko naan naan maa ngi naan soo ba tey te waxoon ne ndox am fii suukaram fii lépp benn la te fekk ne li kenn yàlla rek la leneen kul yàlla rek mindeefu yàlla rek xam ne loolu lépp ba pare jub woogu di jaamu yàlla dëgg dëgg boobu mu amoon ci mindeefi yàlla nañ yàlla boole ci ñu ko xam yàlla nañ yàlla may xam-xam kuy jëriñ xam-xam bu ñuy jëfee xam-xam ak mëdët bu ñuy génnee ci bàkkaaru bokkaale yàlla bañ gis ne borom bi kenn la rek moo yàlla subhanahu wa taala kuréel moom ak maqaama boo mun ci wàccee rek jaamu yàlla adduna bi moom maqaama bu fi waay wàccee moom bu bu ba rëy ab yeneen dugg bu ko néewee ab xul boobu waaye mënoo nekk leneen أنا يا الله جنبلي على خال جمشني بطير ماني بطير ماني جنبلي موكي كامي جنبلي موكي سنغال يكتشني يكتشني بير يكتشني تبني واني جاي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي يا ربي لتولني المدد واسلك بيد الخدام من هاجر رشد بسر خير من بنى بيت الصمد بسر من علمنا الله احد لا مسنا فقر ولا احتياج لغير من لنا به ابتهاج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 waaye waay ji toog leen toog leen. Thiam jël nga wax Thiam wala nga wala nga balaa ñu ñu def ko xitaamuhu misku ndax Seydou Aïssa dafa war a joxe kàddoom ñun ñëpp toog mu tëj jotaay bi incha allah ci jàmm ci des bëreetul nañ ko yeggali rek nañ ko góorgóorlu ba yeggali ko na ñëpp toog ñu yeggali ko incha allah. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne daanaka wax amul fii dafay ñaan mu ne mu ngi kontaan bu baax si conférence bi nga xam ne sëtën bi def na ko de Cheikh Ibrahima Cissé Jalaluddin mu ne dégg nañ fa xam-xam dëgg mu ngi ñaanal bu baax mu ne yàlla def la mag tabarkalla mu ne wax dëgg yàlla nii rek moom nga mën a mel mu ne fii nga teg sa tànk daal foofu rek la yan na yàlla dimbali la yaa rabbi yàlla daf la mag tabarkalla mu ne mu ngi nuyu Ibrahima Dioum ak mbooloo mi àndal. mu ne mu ngi nuyu tamit doomam Mouhamadou Lamine doomi Baye Laaj Ousseynou Niass. mu ne di ku bëgg mu ne loolu daf koo doon ci waay juróom. mu ne kàddu yii muy wax moom sax la ko bëggoon a jox mu jotal ko waaye mu ne ba tey dina ko jox kàddu mu yeggalil ko ko mu ne daf doon wax rek pour gërëm xale yi ñi nga xam ne ñi nga ànd moom ci yàlla mu ne mu ngi ñaanal ñëpp yàlla mu ne nu ko ñaanee woon daaw ñi fekkee ko ñi ngi ñaanaat ñi fekkee waat déwén amiin mu ne bépp aajo boo xam ne teew na fii yal na yàlla faj ko ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke Seydina Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu ne mu ngi dellu di gërëm di sant mu ne daal mu ngi gërëm koo xam ne yaa ngi ànd ak ci yàlla ak ci Mawlana Cheikh Ibrahim si xale ak ci ñëpp mu ne nag mu ngi leen di invité si journée bu mag bi nga xam ne mu ngi ko taxawal fële ca Léona di 28 décembre insha allahu taala mu ne ñu ngi si invité ñëpp mu ne mu ngi ñaanal ñëpp maa ngi si yokk nag ne mu ne mayut si kenn ngànt mu ne jërëjëf mu leen di jox euh, Cheikh Lamine Niass mu sànni ci kaddu su ko defee ñu jox sëriñ bi mu jàng xarnu bi incha allahu taala. xam ne amul commencement amul fin. di leen xamal ne bu bàyyi toogee ba sëriñ Aliou toog ku leen romb booy seet yonent bu doo ko fekk maa ko wax moo waxoon daawoo ni uriikum kayfa yamshi bàyyi leen ma ma wal leen ni muy doxee moom moo ko wax nettali bu rafet nag bokk na ci fekkee Seyda ñu ngi lay tatagal ci soppe bi nga nekk xamoo kiiraay ci fenn yaay ki nga xam ne bàyyi mooy sa bàyyi boo ko xoo yaa Cheikh Ibrahim naam naam marhaban la lay wax fi ay makkaan rek laay wax boo ko tudd laa wax de muy fu mu nekk ba foofu fu mu xeeb wala sax amul fu mu loolu maa leen xamal loolu Seyda Ndeye Aïda boo fi ñëwoon yow ak Cheikh Baye ngeen toog fii rek yëf yi tasaaroo soxla yi faju na maa leen xamal loolu na wax bi ci kanam ma na ba pare jox na ko Baye na ko joxeel ku demul fi moom doo am de waaw ku demul ci moom doo am yàlla ko wax séddale naa ba pare ndax fekkoon ne ñu ngi ñaan nag ci barke Baay ci lislaam bi mu xam nga xam ne doole lislaam fi mu moo ko fa toll ci barke Baay ci tereexa bi lim ci liggéey ci barke Baye dañ na ko waxal maa war a wax amul de waxal la ñuy wax Baye dañ koo wax loo na ko waxal ku gis fu Baye eh, eh, eh, gagee amut du ci téere bi du ci wax ci te ñu wax loo doo gàkk ci njub ci ngay nekk ñu da topp ju njub ngay nekk ci la ñu nekk maa ngi fàttaliku dañoo dem dama fekk Seyda Ndey Ayda ci kër Xurays bu doon ma maye doomu dama ko xool rek fekk maa ngi amoon lu ma waroon a def waaye dama ko xool ay may maa ngi wëlbati muy muy muy waaye maa ngi ñaan rek waaye bu ma demee faju faju nañ indil nañ ma chèque un million cinq cent mille ma fay gis may bor xool leen rek doy na boo xoolee rek ak ak mbonaat lu muy nàmpale xool rek jeex na nañ ci dëkk ñu ngi ñaan yàlla li ñu am dafa rëy waxuma ko pour neexaay de eh, dañ ñoo ñee ki ñi ñee eh, ki ñi ñee nag war na ñeete ñun dañ ñoo war a ñee li ñu am kenn amu boo amee lu kenn amul da war a mel lu kenn melut lii nag lii bu mu fi takk lii bu mu fi takk dee leen góorgóorlu li leen li ngeen war a def ngeen def ko ba pare nag ne ah euh, naka mu ñu faye la yàlla moo man leen bur bis gouvernement sax bu la liggéeyloo fayu la nga ko mu faye la waaye nag benn la lay fay man salla alayhi salatan waaye sallallahu alayhi ashra man salla alayhi ashra sallallahu alayhi miya man salla alayhi miya sallallahu alayhi alfa man salla alayhi alfan zahabun utifi ala babil janna boo ma ma defalee benn ma fay la fukk boo boo ne fukk mën a téeméer boo ne téeméer mën a junne boo ne junne nag may la tàpp foo taxaw rek nga xam ne euh, Seyda mooy sa wasila nga koy gis waaye laaj nañ ko ne ko yow ku la indi ku la bëgg a gis nooy def melal na nga meloon melal na nga meloon gis ma baabu na nga meloon gis ci loolu ci la ne radiyallahu anhu moo baax moo neex a ànd koo xam ne kii xam na fi mu jëm ma ngay dem de di dem de di dem de waaye xam na fi mu jëm loolu di gis nga bàyyi gestoo du gestoo xam na fi jëm gestoo ngay joor gestoo càmmooy déedéet bàyyi bokkut loolu sante na yàlla doomu aadama dafa gaaw dafa gaaw a tiit waaye buñ tiit jaamit euh, Seyda ñaanal Cheikh Baye ngi nii dafa ne maam ma ne ma ne ma ma ne bàjjen waxati yaayati waxati bàjjen waxati lanati waaw loolu yëpp dafa jaxasoo waaye li li wax ne li li li duuf xajul ci ñi nag bi xajul ci cin li mooy loolu jërëjëf yal na yàlla yàggale euh, daa taxawaay bi defal ah, ah. waaw loolu yëpp ba waxoon na ko allahumma dammir dawlata bani israil wa dammir wa dammir kullu wa jaal amwaalahum xaliwan fi muslimin bàyyi waxoon na ko mm. waa jeex na te wax jooju mooy wéy Cheikh Ibrahim jërëjëf du ma toog ñetti fan de suma Cheikh Maye maa lay waxal loolu yaa baax bàyyi waaye nag lu jógee ko ci tàgg dafay naaw rek bu naarul rek jaaxal ay bokkam jërëjëf ci xam-xam ci bëgg dia jërëjëf Tolni waay sawni waay Tolni Amin ya rabbi Amin ya rabbi Amin Mustafa Amin رحمك إياك نعبد